asalaamaaleykum waa Bargny.
waaleykum salaam.
Gorgui Mbodj ñu ngi la nuyu.
barakaatu.
di la nuyu ak say mbokk yi nga fi nekkal yëpp sa mbokk taalibe yi yëpp. et ba tey di ñëw di am ay gis yu ñuy def ci kër Axlil Kuntiw muy kër Cheikh Bou Kounta gëstu yooyu moo ñu indi tey ñuy ñëw am laaj yu ñu leen di laaj ndax gën a xam tarixa bi gën a xam ku Cheikh Bou Kounta gën a xam tamit naka la Kuntiwu duggee fii ci Sénégal ak nu ñu fi toogee ak lan mooy fi seen jëf ndax lislaam yàgg na fi waaye tarixa yi bari nañu Sénégal et ñu xamal nañu ne yow it kenn nga ci taalibe yoo xam ne ci kër gi ñi gën a mag ñi gën a tasaare tarixa xaadiriya bu bu Cheikh Bou Kounta fii ci Sénégal nga bokk ñu bëgg balaa ñuy door nga wax ñu yaay kan wax ñu yaay kan wax ñu tamit naka nga dugganteeg naka nga dugg ci tarixa bi balaa ñuy ro balaa ñuy egg continuer jërëjëf.
man maay Cheikh Mamadou Mbodj Cheikh Mamadou Mbodj 1949 si laa dugg ci tarixa bi ma nekk Mbuur 1950 ma ñibbi sa fii fii laa juddoo de waaye bi ne dama ne dama nekkoon peeseer mool nekk Mbuur 1949 si laa dugg ci tarixa xaadir 1950 ma ñibbise ma ñibbise Bargny fekk fi sama xarit bële muy Seex Aaroona Ndooy muy boroom kër gi muy sama xarit fekk yàgg nanu booba mën a gumaa jël werd xaadir si sama vingt-trois cent si laa jël werdu xaadir téye ko téye naa ko bi ma ko jëleeg léegi mu ngi ci quatre-vingt-huit bi ma yoree wirdu xaadir ak léegi mu ngi ci juróom benn fukki at ak juróom ñett
soixante-huit ans.
bi ma nekkee xaadir ak léegi yore wirda wi mu ngi ci juróom benn fukki at ak ñett ci sama ñaar fukki at ak ñett ci nga ko jël.
ci laa jël wirdu xaadir ma ñëwee fii fekk fi sama xarit bi muy Seex Aaroona Ndooy yàlla booleel nu ma ñëw muy xaadir yore yore taalibe yi fii mais ànd ak moom mooma mu mille neuf cent cinquante cinquante et un nu a nu jóge fii dem Jaasaan neuf cent cinquante et un sa xarit bi yaa ko dugal ci xaadir bi.
Seex Aaroona da si juddoo dafa juddoo ci xaadir gi dafa juddu fekk baayam di xaadir maamam di xaadir ndax Bargny xaadir moo fi amoon Bargny amu koon benn benn benn tariixa amu fi koon lu dul xaadir xaadir moo fi jëkk laayeen topp ci tijaan soog soog see topp waaye xa mag mag ñi fi nekkoon ñëpp sunuy maam ay xaadir la ñu woon
xaadir yi taalibay fan la ñu ndax c'est bon xaadir waa Mauritanie la ñu woon waa kër Cheikh Nasser Sadi bu wala Cheikh Mohamed Fadil la ñu woon wala daal ban façon ba ñan moo doon seen seen seen i wasila
mu ne xale yi newoon fii mu ne yi fi jiitu woon ndax waa kër si satbu lañu wa ilaa waa njaasaan lañu fii waa Njaasaan na fi jiit
dégg nga fii Njaasaan na fi jiit
donc fii naka jekk.
waaw Njaasaan na fi ca mag jiit ña ba tey waaw ay taalibe Cheikh Bou lañu. Cheikh Bou Kounta bu Njaasaan ndax Seex bu Kunta moo mag Seex Saadu moo ko jiit moo jiit fii ndax ay doomam Siid Lamin Baay Siidi ma muy tabax tabax googa sa Njaasaan bi muy jàngi gànnaar fii la ko Seex bu Kunta indi Seexal Bekaay Seex Siid Lamin sëñ Abdou Abdourahman Kunta fii la leen Seex bu Kunta indi mag ñi ñi dëkk si bari dëkk bi ñoo wa- ñoo defar saxal see cere ji ñu war a yóbbu gànnaar ñu kolika ci tere mu dem ndar ba ñu demee ndar fekk ka fa Seex Bu Kunta kii Seex Siid Lamin bi bi muy jàngi gànnaar loolu yàgg na yàgg na loolu yàgg na fii xaar Kunta boo fi jiit mag ñi fi nekkoon yëpp fii bu ñu masaan a béy dañuy jël asaka ji ñi am kantan enu ko dox fii ba Njaasaan booba tere amul dañuy dox fii ba Njaasaan enu seen asaka yóbbu ko Njaasaan seebu kunt ba ba tey dañuy gis bi ñuy suñu gëstu dañuy gis ne la ëpp ci ay taalibeem ay bambara lañu woon waaye nag ci biir gëstu gi tamit ma seet ne lëbb gi fii bari ñi bari woon na fi ay taalibe naka ngeen dugganteeg Cheikh Bou naka ngeen fasante naka la mag ñi fasanteeg moom naka la ñu dugganteeg moom ba tey jii bari ñi daal mun a doon foo xam ne repère la ci biir tarixa bi
mu ne dafa gis ne lépp si taalibe ay bambara ah mais gis ne fii si Bargny ne lébu yi alay lébu yëpp taalibe kuntu la ñu mais nan la ñuy def ba jokkoo boobu ba lébu yi nekk taalibe kuntu taalibe kuntu la ko indi lu tax lébu yi nekk taalibe kuntu lébu yi waaw li tax ñu nekk tàllu waaw lu tax waaw lébu Bargny gi lébu Bargny waaw ah loolu nag jiitu na sama jutu ndax loolu jiitu na samay maam waaw ñoo nekkoon taalibe loolu jiitu na sama juddu Dëgg la.
loolu daal euh, sama xam-xam eggu fa man daal bu ngeen ma laajee lu ma xam naa ko wax waaye lu ma xamul du ma ko wax dëgg la waaye xam nga kuy laajte moom dana laajte lu weesu lu judd morom ndax dana dégg ndax dana dégg xëy na mag ñi nettali nañ leen wax mag mag ñi waxtaanee nañu leen loo xam ne ne la xëy na nii la ñu jokkoog moom ñëwoon na fi wala am na yoo xam kay waaw waaw bo- donc après après ñu jox micro bi waaw waaw, parce parce que- que moom moom parce que moom itam. sore ñu génération.
waaw sorewuñu te it ñoo ànd.
aha parce que kii.
aha kële fu kii dem kii dem kër dem la dëgg la kii ñooy ñooy woon seen xale. comme ñun dañuy doon ay xale.
mhm, dëgg la donc fu kii dem rek kële dem la.
waaw.
te it am na dégg parce que mhm.
euh, ku yàgg ànd ci mag yi la. am na lu bare loo xam ne teewe na ko.
fekk na xale la woon waaye fàttali ko.
léegi question boobu da nga koy séchage.
waaw d'accord nga laaj ko ni mu woyee. ak nan la woyandoo góor gi nga xam ne.
waaw d'accord waaw ba tey bon nag ñu bàyyi question boobu après dinañ ci jeg siwaat ba tey ñi di la laaj góor gi Mbodj e yow lan mooy sa taxawaay ci biir tarixa bi lan mooy sa taxawaay mu ne lan mooy sa taxawaay si tarixa bi
sama taxawaay si tarixa bi waaw
sama taxawaay day si tarixa bi ba ma ci duggee ba tey yàlla def ma def ma bëgg a tarixa bi nekk si it di si giide di si giide ah am na ñoo xamee ne tey dugg nañ ci tarixa bi man yàlla man maa leen dugal si tarixa bi maa leen dugal si sama taxawaay ba tey jii daal maa ngi si tarixa bi ah, sopp ko di si wax lu baax di si def lu baax ba fi ma nekk daal tële naa màgget naa mënatuma daal waaye si ñii daal ñii woy ci nga bokk ñii woy ci tarixa bi mu ne ñax di daan way si tarixa bi si nga bokk ñu daa woy waaw waaw léegi nag da nga xamal ka ne waaw tari bi fu mu yegg man mi maa ko fa yóbbu si way fu mu yegg waaw xamal ko loolu yow waaw fu mu yegg si way Waaw.
yaa ko fa yóbbu waaw loolu ah at am mi nga commencé ban at nga commencé way Waaw.
si tarixa bi tarixa bi surtout tarixa kunti kunti yu fii ci Bargny bu ma yeboo ma wax ni fu mu yegg tey kële ak man yàlla ak sama xarit bële ak man fu mu yegg fu mu fu fu fu ne bi bi bi nu fi nekkee booba fii ba ba ba- ba Dakar ku fi am jàngi xaadir ci nun ngay ñëw nooy dem jàngal booba jàngi xaadir melul léegi nii booba woykat yi barewuñu booba man maa fi nekk man maa nekk première woykat fii ci xaadir yaa ci Njaasaan yow mi premier woykat
1950 laa commencé fii ci Ndiassane bel fii ma ne ba fii ma ne eh, eh, wàccuma wàccuma yoon allo allo
damay damay woy Ndiassane 50 ba 87 ma feebar si laa bàyyi woy 50 ba 87 waaw way yi ngay way looy way lan ngay way
mu ne lan nga daa- lan ngay way
woy xaadir waaw wayu xaadir la yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mohamed ak Cheikh Cheikh Abdou Hadar ak Cheikh Bou Kounta ak Cheikh Sidi Lamine ñoom laa ñoom laa jàng ñoom laay woy waaw ndax dafa am yeneen taalif ay taalif yoo xam ne nit ñi dañ ko daan taalif nga di ko woy par exemple comme yi ñaan poème di ko taalif di tagg sëriñ bi wala di tagg tarixa bi yoo nga xam ne dañ la koy jox nga di ko woy mu ne wala yoo fental sa bopp yow mu ne waxal ba baax mu ne ah ndax am na ay taalif yoo xam ni nit da ko fente nga di ko way wala am taalif yoo xam ni yow si jëmi bopp yaa ko fente di ko way waaw loolu am na waaw loolu lay laajte waaw waaw presque bari na leer yu xaadir yi woy xaadir yi dañ ñu saase ko man maa ko sa man maa ko taalif man maa taalif woy yi nit woy na nit woy na indil ma ko ma seetal ka leer leeru woy ma def ko woy ah woy naa it def
booy day Waaw.
jox ay xale ah ñu woy maanaam day bind waaw bu bindee jox ñeneen ñu woy bu demee ba woyatu Waaw.
daan bind di jox ay woy ne sama rakki papa bi daan woy waaw ne aha.
ñi ko jàngal moom ca la ko
bi bi may woy maami kii
boobu boobu boobu boobu yàgg na boobu boobu bàyyi kii Waaw.
xale la bu dee nii ma bàyyam Birge Jëmbaaw di ko téye ci loxoom moo jur kii ak Awa Gueye maamam yaay yaayi bàyyam Awa Gueye la tudd kii xam naa ko loolu kii moom xam nga ko bu baax moom ah
waaw ba tey fii ci Bargny tarixa bi xam nañ fi ne wesaare na fi xam nañ ne am na fi doole waaw ba tey naka ngeen di encadré naka ne boobu ba nga munee naka ngeen daan encadré xale yi ba tey jii te tarixa bi mun fee samp bu baax nii mu mel
mu ne ah tarixe bi si Bargny nan ngeen def ba tarixe bi samp am doole si Bargny gi nan ngeen jëfee nan ngeen daan encadré nit ñi taalibe yi ba tarixe bi taxaw tey ci am doole ji
waaw waaw jaay la waaw bi- bi ma ñëwee fii jóge Mbuur bi may ñëw fii booba woykat amu fi bariwul booba ñuy ñoo fi nekk dee xale di woy ak suma benn mag buñ naan Moussa Ndiaye Alaaji Moussa Ndiaye booba ñoo fi nekk di woy bi ma ñëwee Mbuur nag jóge Mbuur gën leen a mën a woy ñu jël topp sama gannaaw
ab daayira din créé woon wala déet ab daayira ah ab daayira nga defaroon wala waaw daayira waaw loolu lay laaj
ñu formé fii si kër gi daayira daayira bi ñii ñu ngi si ñenn ñi génn nañu àddina waaw ñi ñii yaa yaa ngi naan ñii waaye tuddoo turam de nu mu tudd
man man dama tudd ne ne ko ah.
kii moo la alaaji Asan Siis Alaaji Assane Cissé Cheikh voilà alaaji Asan Ngo- Siis ah, parce que enregistrement bi def naan ñii kii mu nga ca te duñu xam kii mooy kan mooy Cheikh alaaji Asan Alaaji Assane Siis Cissé waaw ñii Mhm,
ñoo ma daan aawu mhm.
bi may woy ñii ñoo ma daan aawu ak it alaaji Babacar Ñang alaaji Babacar Ñang
Maguette Thion ak it Daawuda Coon
Maguette Thion ah ah Maguette Thion waaw kay kooku sunu rakka la sunu jarbaat la dafa gaañu moo ñi ñoo daan ànd di ànd ak man
léegi
bi nu ñëwee nu am muumaa bi ma ñëwee bari ñi am muumaa xaadir ñëpp ku dëkk ci bari ñi bëgg a doon xaadir ku dëkk ci bari ñi rek bëgg a doon xaadir booba ñi ñoo ma dar di ma aawu presque nu nu demine nu demine tarixa yi fi nekk yëpp góor ñi ñii ñëw di jébbalu fii fi Seex Aaruna mu may leen wérd jigéen xale yu jigéen ñi ñu ñëw bokk si si si daayira bi ku nu jëm ñu topp ci bi may ñëw fii nag booba ba daanaka jigéen ñi ñoo daan tëgg tabala jigéen ñi booba Njaasaan bu ñuy dem Njaasaan tere la ñuy dugg ñu ngay wàcce gaaru Tiwaawan bu ñu wàccee jël tabala yi tekk seen digg di dóor nit ñi topp ci nun ba Njaasaan c'est si c'est Sidi Lamine bu nu bu nu fa nekkee ba ngoon booba la ñuy liggéey tabax bi
loolu la ñuy liggéey étage ba waaw bu nu fa nekkee ba ngoon bu nuy ñibbi mu ñaanal nu nel nu bu ngeen di dem bu ngeen laa dugg a terrain jaar leen ci sëñ Babacar mu ñaanal leen ngeen soog a dugg a terrain dem c'est asir la mi booba mu ngi rafet booba bu nu wàcc nu ngay wàccee fële ca gaaru bar ji gaaru bar ji fële ñuy wàcce takk tabala yi si si kër si jib àddina bi yëpp mëbba topp ci nu ñu ñu da ngeen jëm dugg sa bar fii ñi
jëm sa fii ba tey ginnaaw yow ci mag yi nga bokk loo fekkewul tamit am na loo dégg ma bëggoon nga waxtaanuñu sëriñ bi Cheikh Bou Kounta loo xam ci moom wala ñi nga fekkee seen xilaafa lan nga xam ci ñoom
mu ne waaw
Euh, comme daanaka suñu fi mag si tarixe bi nga bokk waaw mu lay laaj lan nga xam si xilaaf ak cheikh bu wa ilaa lan nga xam si xilaaf ak ñi ko fi remplace nga wax si liñ si xam loolu lay laaj
xilaaf ak seex bu ah xaw ma si dara ku seexal bekkaay xaw ma si dara man maa ngi si duggee ci xilaaf ak siid seex siid lamin xilaaf ak seex siid lamin laa duggee ci la laa ñëwee ci tarixa bi bi ma ñëwee it mu mu bëgg ma lool fonk ma lool defaloon na ma sa guddi àjjuma ma jóge bar ji dem fanaanee ak moom jaasaan moom see siir lamin kunt sur deuxième deuxième xalifa seex bu kunt mooy deuxième xalifa seex bu kunt ndax seexal bekkaay mooy premier xalifa see see siir lamin mooy deuxième ànd na ma ak moom it àndin wu rafet mu daan bind ay ay xa- xasaayit ay woy jox ma ko ma di ko woy ndax yooyu yaa nga ci amee ba tey xasaar yooyu xam ne Cheikh Sidi la moo ko bind ci loxoom di la ko jox
mu ne la ndax way yi de si Lamine daan jox ba léegi mu ngi ak yow waaw mu ngi am man mbind ma mbind ma waaye kay.
mbind ma laa mbind ma waaw mu ne mbind ma mu la laan jox ndax mbind ma mu ngi ak yow ba tey mu ngi am man waaw ndax mën nañ ci am ñu photocopier ko rek wala ñu kii ko delloo la mooy ndax mën na ci am si way yi dañ koy photocopie.
dañ koy photocopier rek.
dama ko dama ko def si benn carnet parce que waye mënuma ko koon a denc dama jël benn carnet bind ko ci jël benn carnet bind ko ci ah am na si waye nag mën naa laa jox boppam bi nga jël ko
waaw parce que li tax ma laaj la bind yi moo di ne ba may gëstu ba tey gisuma bind ba may gëstu ba tey gisuma dara dañ ma naan bind am na waaye gisuma loo xam ne nee ne mën naa ne la kii kunti bi moo ko bind ci loxoom wala moo ko kii gisuma ko gisuma benn bind nee ne te xam nga koy def recherche bind lu am nee na ba importance muy la.
gëstu ba tey gisagul luñ na lii kunta moo ko bind mbaa kunta moo ko taalif ci waa Ndiassane te waa Ndiassane loolu moo tax mu soxla ko ah mu ñettaali fa ngi si man de mu ngi si man nee na mu ngi si moom de waaye dama ko bind si benn téere seen bi way bu nga waaw
أكسف إجابة سلمة الدحماء يا تائب النؤوت والأسماء بأس موتك وكبريائي بذات ساتك وبالبهاء وكن لنا من كل داء من أرد من فتنة ومهنة ومن مرد بهفتك اللاتم ولطف اللحم يا حي يا حي يا مولي النعم بوبو سي سيدي المحتار موكا تالف سي سيدي المحتار قلت لي.
alkabir
moo ko talef Baye Sidi moo ma ko jox boobu ñetti woy yi bi mu bi mu génnee àddina fañ ko tëral ci jëm ci bàmmeelam la ko def Cheikh Sidil Maxtaar ak si ijaaba sulmati daxmaai yaa taaiba nu ooti wal asmaai bi asamootika wa kibriyaai izati saatika wa bilbahaai wa kun lana min kulli daaiman irat min fitnatin wa mihnatin wa min mirat doom ji Mahamadul Xalifa te ko loo xam ne ko bàyyi bul jaaxal waa àddina dunda di wax dee di wax bàyyi li nga bëgg a wax dinaa ko yeggali bi hif si mu def sa bi hif si moom Cheikh Sidi Cheikh Sidi Mahamad Hamdul Kunti doom jo def bi hif si kalaatima wa lutfi la am yaa xew yaa xeyoom yaa muuli ne am dafa nekk sa téere ba nag mu nga sa téere ba ba tey xam naa ne njaga dinañu toppatoo bi loolu nga ci problème bi nga ci am moom la ñëpp am maanaam yow bëggoon nga gis mbindum loxob Cheikh Sidi Lamine Ñu waaw.
donc problème boobu mais moom am na jotu sotti ka waaw mais nag originalité ba Cheikh Sidi Lamine bindoon moom Baye Sidi xam naa ne problème conservation day am ndax bu njëkkee ca waxande lañ daan denc wala waxande xànq lay doon yenn saa yi max yi jàpp leen wala yooyu xam naa ne day am waaye léegi li mu am benn benn yu ricc yooyu la ñuy soxla woon ndax yooyu boo ko amee da nga koy kii document de base la boo xam ne day accompagner kii bi looloo taxul ma di ko laaj waaw ku ci am tamit nag bu ñu ko amee tamit dinañu intéressé ndax du ay document waaw ah Ndiassane de dem naa fa ñaata yoon mu ngay bëgg a bari de dañu dañu dig nañu waaye gisuguma dara am nga rek sama gars yi dañu génn en retard waaw dañ koy dañ maanaam koy laxa quoi.
waaw waaw
dañ ngi ci rëccoon gis sax amuñu Sidi Baye Sidi it jox na ma moo ma jox ahlu abi naamata lasraafu min jiati lumi wala xilaafu ummu abi naamata bilmumna tusamma silfadilati lmutamman hiya bintu ismaila nejdu sulal nejdu lhabib ibnu sair الفدل ابن رداء عبد الكريم ابن فضل ابن الإمام الصاري من ابن رداء لأحمد بن عابد الرحمن سليل يحيى مرتدى السيدان بابا سيد لمن moo koy yëkki jox ma kunta moo ko wacc sax léegi jokkay kunta maanaam ci noonu la bintu Ismaïl ba mu wax bintu bés boobu maanaam ci ni ñu doone shérif
boobu fi fi fi ndeyi seex bu naama seex bu naama bàyyu seex bu kunta waaw ndeyam sërif la fi mu nekk sërif l- mooy wooy woowu ma wax la mooy soxna mun na kunt fi mu mun fi na mu jëleeg sërifam dara, mën ba na si si- seex abdou xaadar mooy wooy woowu jox na ma tam بصرك يا حلب هذا سيد الأمم وأسي قدرة المختار في الرمم wa asi rawdatul xaraay sairatun wa asi ubbatul xaraay kal alami yooyu wa yëpp min ci ci taalifu kii la bokk Cheikh Sidi Makhtar la bokk de cela que Cheikh Sidi Lamine Cheikh mais Cheikh Sidi Lamine moo ko jox parce que moom da daan garder moo tax waxam ne ba nga daan tuddoo.
waaw waxam ne Cheikh waxam ne ba Sidi laaj naa ko ba tàyyi gisuma ko boobu kenn mënu ko gis.
waaw.
mos na ñëw dégg na mi ngi ci bàyyi ko. donc moo ko daal. donc archive yoo xam ne Cheikh Sidi Lamine peut-être conservateur da daan denc. donc woy yooyu doon ñëw donc pratiquement moom amoon na chance Cheikh Sidi Lamine. di ko jox fekk daf ko jox waaw comme que moom am na copie bi de façon ñu am texte yi waaw waaw.
ma ne ko mën nañu am texte yi gannaaw copié woon na ko loolu léegi yaa ñu toppatoo loolu incha allah am na solo.
wala ñu bàyyi ko ci ndóoyeen bi ah ndóoyeen bi moom xam naa ne moom am njaañeen moom waaw jëlal kii nag waaw dinañ jël kii waaye jëlal kii euh, euh, damay gis tout le temps li kii gën a bari baayam xaadir la waaw maamam xaadir la kii jur maamam xaadir la mu ngoog léegi ñu ñëw jublu ci moom waaye dama gis li bari ci tarixa yi ay waxtaan bu amee dañuy waxtaanee seen waajur sama waajur sama waajur sama waajur ndax boo leen naan dem gàmmu njaasaan Sidi Lamine ba nga fekkee ay ay bésam daan na waxtaanee ay waajuram si seen ay keemaan wala ay kiraama yoo xam ne am na fa
mu ne day laajte ndax bu ma mësa dem jaasaan ndax dafa gis tarixe yi dafa gis si tarixe yi jamono bu ñu amee jotaay si seeni waajur rek la ñuy ne di waxtaanee mu ne yéen bu ngeen mësa dem jaasaan ndax Sidi Lamine moom noonu la daan def wala nan nga la daan jëfe Sidi Lamine daaw def na nan la daan jëfe loolu lay laajte Sidi Lamine Sidi Lamine Njaasaan Sidi Lamine ak xalifaam kenn du kenn kenn daawu ko sa woy sax yàlla li li gënoon a bari si li mu soxla ci woy ci gàmmu gi mooy ibnu mahayab halilu yaaw jaabil maasabi wa amsila ولا تبحيا أنها الفي متعولة أمسي كيف ترهار هي كالأنبياء يسمع عن ما تولت على يسمع أك بردو أمن تذاكر جيران بسي السلام مسجد دام درام مهلة البدم يوي تيري يو محمد البصري لندن غامو بسير لامين دي دوندو booba yoo loolu lan daan gàmmoo bi mu fi jógee nag la fi yooyu jóge waaye bi wax mu fi ne- waxtaan waxtaan gi yëpp ci yooyu la li mu daan waxtaanee gàmmu gi
mu ne tuddoon na la ñaari téere.
ndax waxtaanam bépp si yonente bi la woon wala déet waaw Sidi Lamine waaw tontul
waxtaanam bépp si nabi sallallahu alayhi wa sallam donc ci moom mu xamul leen baayam ni mu meloon wala xamu leen ca yi mu daan def wala ci yi mu daan yëngu xamu leen ca dara caaxaan it ci ay waxu waxam ko dara déedéet ma ne ko ci ay waxtaanam waxtaana Sidi Lamine mu ne ndax Sidi Lamine daaw jékki toog ak yow di waxtaan ak yow si cheikh boobu mu ne daa ndax Sidi Lamine daaw toog ak yow di waxtaan ak yow si cheikh boobu qualité cheikh boobu ak melokaanu cheikh boobu ak jëfam jëfi cheikh boobu ndax Sidi Lamine daa ko waxtaan ak yow wax dëgg yàlla déedéet ah ndax lu yëngu li xam ne lu yëngal li nga yëngale ko ko doole te li ko yëngal mooy Cheikh Bou bi mu nekk Cheikh Bou sant Ndiassane te xamuñu lu bari ci moom waaw xam nga xamuñu lu bari ci moom waaw lu mu gàtt gàtt. le pourquoi ci loolu ñu mën a jox. d' abord wax na ko Cheikh Sidi Lamine donc seen lépp yaram ci loolu sama ndax Sidi Lamine lañ lay wax. waaw loolu jaru ko xam nga parce que dafa am loo xamee ni sànq mi ngi junj ñaari téere mi ngi wax Burda di wax Hamziya tey Burda boo déggee nga dem taan boo booy dégg way da ngay defe ne dañ lay wax ni sëñ Babacar ko bind mais Mouhamed Bouchir moo moo bind Burda boobu doon ci tagg yonent bi donc ñoom seen force c'était quoi il préférait woon nit ñi yàlla wax nit ñi yonent bi que de parler d'eux li ñu jotu ñun am ab dégg ci Cheikh bu Mouhamed damay wax ni dinañu génn na ci xissa boo xamee ni maanaam ñu ne am na diggante Cheikh Sidi Yaxya ak Cheikh Ahmed Ould Fatan Cheikh Ahmed Ould Fatan mos nañ la ko junj sëñ bi nga ko doon wax nekkoon na borom xam-xam boo xam daana jógee gànnaar ñëw fii kóllërante kunta yenn doom yi fa lañ daan jànge sunu borom da ko moy nag mu daan dugg di waxtaan ak Cheikh Sidi Baba yi déedéet bokk la ñoom déedéet daan na dugg di waxtaan ak ay néew des fois mu génn ñu ne sëñ Sidi Yaxya di ko laaj lan la borom dëkk bi wax mu joxe ay tegtal mais maanaam tegtal yooyu la mu ci jubloon moo nekkaat defaraat njaboot bi mais ñoom kunta musuñu bëgg a toog di valoriser ñoom seen bopp di la wax ni ñun ñoo def li wala ñun ñoo def li c'est ce qui fait que souvent bindu kunta wala yenn yi nga xamee ni Cheikh Mouhamed def na ko fi nit ñi daan ko réeral lañ ca am mooy la doomu bambara ba lañ koy wax ak la sëtu lébu ba la ko maamum wax ca na mu jokkee ci kunta jaare ko ci Cheikh boobu waaw moo tax muy def mais ñoom doo toog ak ñoom ñu la ko ba ci baay bu mi ba ci baay bi mu fi mus a jóge musu ko nangu li mu doon wax yëpp yàlla la yonent bi donc ñun ñooy toog ak moom nga xamee ne des fois mu dal mus naa la koy wax nee nañu dina nekk ci xaal des fois xaal bi dinañu jëriñ des fois xaal bi duñu jëriñ saa yu nekkee ci xaal bi ñu jëriñ nag ñu profité laaj ko ci la ñu mag ñi ñi ko doon topp ñu ci mel ni ñoom góor gi bu bu mbaay ñooñu dañu daan wax la ñoom Cheikh bu Mohamed doomi Cheikh bu Mohamed yi daan def ci bu ñuy sànc yenn dëkk yi ñun ci géwél yooyu pratiquement la ñu amee yenn yi mais ñoom nanguwuñ ko mus a def donc dañu privilégié woon le chemin de Dieu ak yoonu avec les dires donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lii moom participation Ndiaga Koné la ci waxtaan gi ba tey ñu continuer eh, ñëw ci sëriñ bi siis Cheikh Assane Siis moom it di mag boo xam ne fekki na yu bari wala dégg na yu bari